1968 ba léegi fii la ñuy tuur mbalit mi tukkee ci kër yi ci ndakaaru yépp muy zone bu yaatu toll ci 200 hectares moo ne décharge bi ci hectare hectares rek la tollu woon at yi di dem muy gën a yaatu fii ab lak bu yaatu newoon na fi mi ngi fi sax ba léegi waaye li si des daanaka bareetul fii ay junni doomu aadama ñoo fi ne di daan seen doole di for mbalit yi mi ñu tuur di ko tànn di si génnee yoo xam ni gannaaw ba ñu ko soppee dafay delluwaat sunu kër yi jege nañu ci kenn di daaw da Sow mu xam lañu lan mooy liggéeyu récupérateur wala buujumaan waaw mun naa ne depuis quatre vingt dix maa ngi fii ci Mbeubeuss liggéey récupération comme ni nga ko gisee ci biir waaw gis nga am na ay xale am na ay mag am na ay màgget âge yëpp ngi fi ñàkk jariñu ñàkk jariñu la parce que li ngay récupérer mooy lu am njëriñ nga jël ko valoriser ko mu jural la njëriñ daal nga am ci loo xamante ne si moom ngay suturloo. waaw song bu metti boo waxee mooy récupérer bi nga wax rek parce que song bi ku ci ne da ngay song pour récupérer li nga ci soxla moom mooy waral song song bu metti boobu noonu. waaw dëgg la dina leen jaaxal nag parce que tamit boo ñu gisee lu ñëpp sànni. ñu boole ko sotti ko ci benn oto ku ci ne bu ñëwee ñu xëccoo ko mu doon valeur si ñun kon loolu amoon nañ njëriñ te njëriñ boobu noonu lépp loo gis ne ñoo ngi koy fortay moo ngi delluwaat ci dëkk bi nga yëg nga yëgul nga xam xamoo mais moo delluwaat ci dëkk bi ndax ñoo ngi koy valoriser di ko recycler muy doonaat luy jëriñ askan wi. am na sax ay doom yi yeneen réew yu fi nekk. dañ fee gën a bari ci moment bii nii nii nii nii may wax ak yow Temeng dañ fee gën a bari parce que tamit am na ay dëkkuwaay yu nekkoon dakaar yoo xamante ne si yooyu noonu jëleel nañ ko fa waaw dañ ko toj yooyu ñu bëri gis nañ ñu daal ñu bëree bëree ngi ñëw di daanu si fii nii muy ay étranger te loolu aussi doon na luñ jaaxal te tax na fii tamit gën a sati rek yooyu noonu mpudi fala kuma grâce a Deus pobedi kuma bon e tarbajuli manga jintis e katene pusulu daadi pega kawdi tarbaja ndi ke pudi pega paye conseiller turi kinki belli i pobedi kuma i mbon iɗi sindi allahu hmm. ki puyi kada kin belli amimme liki sugundu bias kumbelli awoski sugundu bias ami nungan tarbajali e ma jentisna pidi saru pa saru borino 2023 mi fuɗɗi gollude ligguey ɗe quoi mi waɗi ɗo lebbi sappo guila mi fuɗɗi ligguey ɗe kono alhamdoulillahi rabbil alamina waɗi komi yi e muɗum seeɗa quoi ko ɗum waɗi hami jokki jokki ligguey ɗe quoi alhamdoulillahi ligguey ɗe wondi e caɗele seeɗa quoi kono alhamdulillahi feere ala ko ɗum waɗi ha mi jokki ligguey mi nanggui ligguey ɗe ko alhamdulillahi o waɗi komi yiye muɗum seeɗa nasru ko humde haajuji am seeɗa seeɗa quoi Abdoulaye Seck 2006 ba léegi ci récupération wu plastique la nekk. matière plastique laa nekk. ñun dañuy dem ñun dañuy toog euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy dem di récupérer ñooy indi jaay ñu ñun ñu dagg raxas. joor a jébbal entreprise yi nga xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy liggéey matière matière première bi te maanaam récupération boobu noonu ñuy def dafa metti trop ci condition yi nga xamante ni moom lañ nekk bëgg nag état jël jëlee ñu ci informel bi yóbbu ñu ci formel ndax tey jii dëgg la li ñu liggéey daanaka euh, du ma ne ñu ngi ciy gis suñu bopp à cent pour cent mais ñu ngi ciy faj li nga xamante ne mooy soxla yi ndax Sénégal lu ci ëpp soxla la boo fajee sa soxla yi boo fajee soxla yi amoo loo denc boo feebaree doo mën a faju te bëgg nañ tey jii état teg ñu ci condition yi nga xamante ne ndax ñun tey jii liggéey dong moo ñu tax a jóg du leneen ndax tey jii mënoon nañoo seeti leneen dem defe ko. plastique boobu. bare lu ñu siy defar suñu ko soppee. si ba ci évian bi ngay gis. PE lañ koy wax matière PE lañ koy wax évian bi dañ koy defaraat ay mayo parce que ci chinois yee ko fiy jël si di ko yóbbuwaat foofu na di ko defaraat ay mayo waaw. non no wax dëgg fa neex yàlla moom gisuñu suñu bopp euh, si li ñuy jaay prix de un baaxul chinois bi tamit fixé wul prix ni ko neex lay yokkee ni ko neex lay wàññee. waaw liggéey bi daal am na jaxasoo na am na ay jafe-jafe trop sax. di liggéey boo xam ne kaaraange bi taxu koo bare. ndax yenn saay ñu am si ay gaañu gaañu yu metti loolu dañ ciy am ay danger yu méttee métti tax parce que yow gis nga amul sécurité nu ñuy liggéeyee am na ay mag am na ay xale. gis nga ni oto yi dañuy arrière comme ni ko mag ñi di dawee xam nga mag mënul daaxanteeg oto xale aussi kazalika naka noonu dañ ciy am day am ay accident yu méttee métti am na ñu si sax dee dafay am ay choc yu grave ñoo xam ne dañ ciy dee dafi am. bëri naa ci xarit bëri naa ci ñu ma ci xam man mii sax am naa ci blessé baaraam bii ngay gis nii ci fii laa ko jëlee. faju feebar faju ah dina doy waar de waaw peut-être nag ñun yàlla def na ne amoon nañu benn centre fële ci bunt bi. léegi bu ñu amoon yenn blessure yu ndaw yooyu noonu mën nga fa dem dem defi sa première soigne ak yooyu noonu xam nga après bu laajee jàll hôpital ñu jàll la mais loolu noonu sax amatuñ ko faf amatuñu suñu centre boobu sax ñàkk nañ ko faf voilà fu mu toll nii bu ñu feebaree wala ñu amay gaañu gaañu dañuy obligé dem ba Kër Massar léeg-léeg ci saret lañ ay teg xam nga léeg-léeg ñu jéem laa teg ci moto ñu def ay pexe daal yóbbu la ba Kër Massar jéem laa faji liñ ci bëgg mooy tey jii ñun au moins amoon nañ benn centre boo xamante ni au moins ñun amoon nañ fa benn case de santé boo xamante ni moom moo fa amoon li fa amoon tey jii ñu nekk fa lépp même lu la mënti dal boo fa demee tey jii au moins di nga am ay premier soins ñu faj la euh, soo amee xaalis di nga faju soo amul xaalis di nga faju Euh, ci loolu nag man duma ci sori ndax am na ci koo xamante ni tey jii loolu mën na yaatal ci lu bari ci loolu noonu ndax kooku mooy le secrétaire général de l'association de Bokk Jom kooku am na lu bari loo xamante ni mën na ko ci yaatal ci côté boobu noonu. saafara jafe-jafe yooyee. yëpp nag moo tax ñu booloo ci ab association des récupérateurs recycleurs de Mbeubeuss depuis 1994 li tax a jóg association boobu bokk na ci am ab post de santé bu ñu fajoo waaye bare ay coow yu nekk ci poste de santé boobu Mouhamadou Wade Wade di secrétaire association boobu di ñu indil ay leeral. xam nga poste de santé bi boo seet comme li mu la wax mag ñi nga xam ñoo doon ñoo doon membre fondateur yi à l'époque doon doon liggéey ak ENDA ENDA Grave ENDA Ecopole bon ENDA moo leen financer woon fu mel ni tey benn poulailler bu mag ñi fa doon yar ay ginaar dafa yar ay xar ak benn euh, siège boo xamante ne ni moo doon siège récupérateur yi siège bi dafa amoon poste de santé. pour premiers soins récupérateurs yi am centre de crochet pour doomu récupérateurs yi jigéen ñi couture affaire yooyu am bon salle de conférence am bureau secrétariat am magasin bu dañ koy suñuy bagage loolu amoon nañ ko à l'époque bon ñu ñu dem ba benn moment fii léegi boo seet Mbëbës li ko wër am na benn quartier bi ñuy wax jàmmalaay quartier bi léegi dafa populé bon monsieur le maire bu fa def benn école pour que xale yi di fi jànge ndax avant école bi ñu ñoo doon xale yi fii si suñu centre bi ñu fay jàngee bon benn moment maire ñëw proposé ancien président bi que suñu poulailler bële bu nga ko mënee jox comme que association du jaay xam nga association amoo droit jaay ak jënd bon mu proposé sunu ancien kii fi nekkoon que ñu jox leen ñu jox ko ñu jox ko euh, poulailler bi moom mu def fa école jàmmalaay mais bu ko joxee am école jàmmalaay ëllee jënd mais dañu koy échanger ay terrains yi nekk Malika extension bon mu ne bu ñu ko defalee loolu sax moom am na benn trente millions boo xamante ne ni dinañu ko dinañu ko renforcer que ñuy defaraat suñu suñu suñu suñu siège loolu la mag ñi waxante woon ak monsieur le maire at na di dox mu dem ñu jox ko poulailler bi mu tabax école tey boo demee école boobu ñoo ngi ko def école jàmmalaay xale ñoo ngi fay jàngee bon. benn li nga xam moom la waxante woon ak euh, sunu mag ñi dara dara dara dara nekku si. poste de santé bi amoon lool njëriñ surtout. pour ñoom ñi nga xam ni. ñu si bari ay borom njaboot lañu te doole gi taxu ko bari lool. non métti na parce que poste de santé bi à l'époque tey premiers soins fi nga ko doon defee da ngay récupérer xam day gaaw yu ñëw du am lu mu fajoo. parce que amoon na benn aide benn aide benn boo xamante ne tey boo feebaree amoo loo fajoo bu doon tey nga war a def daan la jàppale cinq wala sept. li des après nga fexe yow noo ko négocier xam nga tey loolu amatul poste santé bi tëj na léegi récupérateur yi au contraire am na ñoo xam tey bu ñu fa gaañoo yenn gaañu yu metti yi parce que fii si biir boo seet bon dafa nekk euh, euh, milieu boo xamante ne ni li fi concentré dafa bari récupérateur yi bari na si décharge bi nag yaa ngi si biir décharge bi oto yi danoo bari xam nga heure bu ñu xëyee nit ñi diggante bari yenn blessé yi bu ko nit amee tey jii mu nekk blessé bu grave tey jii dañuy obligé def ko benn gaañ di di di di di di di def ay bon ay ay ay ket ci biir si biir récupérateurs yi que ñu dajale ko kay dem ut lu na faje parce que amatuñu poste de soins boo xam ni bu maanaam di fi fajoo yenn faj njëkk yi kon donc loolu handicap la si récupérateurs yi bon loolu dafa nekk loo xamante ne ni ba léegi ñoo ngi koy méttiwul te poste santé bi nga xamante ni tey moom la amoon tey monsieur le maire tabax na ko bon pendant cinq ans ngi nii dañ koo tëj moom jariñoo moom moom mënu koo jariñoo ñun it mënuñu koo jariñoo mooy comme li ma la doon expliqué sànq bañ ko joxee école mu tabax école jàmmalaay mu suñu poulailler bi mu war ñoo jox ñetti terrain malk extension ñaari terrain la ñu jox dese ñu benn foofu des na fa léegi fii dafa ni woon dañu koy defaraatal à l'époque loolu la waxoon ndax comme que jox nañ ko lële te lële avant mu koy am am na benn terrain bu nekk fi à l'entrée de Mbeubeuss heure bu fa defee béton wala dafa benn affaire bu tabax ko jeunes yu Malika yi ñëw yàq ko parce que terrain boobu ñoom ñoo ko moom moo tax tabaxu fa école bi avec l'aide ñi nga xam ñoo fi nekkoon ñoo ko accompagner ko mu ñu tabax école jàmmalaay fii xam nga terrain yi waroon fay des na fay des na ñaar lañ jox desal nañu benn fii da waxoon dañu koy defaral da ko defar pare bëgg koo encamparer jël ko def ko domaine maanaam def ko en domaine privé. domaine public waaw domaine ñun loolu la ñuy bañ. c'est parce que ñu woon loolu moo tax cinq ans ngi ni ñu tëj ko xam nga tëj bi nag parce que ñun du nangu am suñu alal waxanteeg yow jox la li lay jox nga war ñuy jox nga war ñuy nga war ñuy jox li ñu diggaaloon na yow defoo ko nga bëgg a ñëw bëgg a rutin bu fu tijji tijji en poste de santé loolu mënul nekk moo tax premier jour bu bu fi ñëwee ànd ak la gouverneur ànd ak le préfet ak le sous préfet ñëw fi pour pour pour ñëw xool si baga kii euh, liggéey bi récupération dañoo mobiliser wu taxaw yuuxu gouverneur wooñu laaj ñu ñu ko gouverneur gouverneur laaj maire maire wax ko mu ne ko bu fi def dara bu fi jéem dara fekk waxoo ak récupérateur yi ba pare ñu bàyyi benn jour ñu xëy benn jour gis benn frigo taxaw di wàcc ay bagage ñu mobiliser waat récupérateur yi ñu ñëw déconné génn bagage yi récupérer caabi yi téel ko suñu bopp mais le sous-préfet moo ñu woo après ñu expliqué ko mu ne léegi jox leen ma caabi yi du leen ko jox duma ko jox maire commissaire laa jébal caabi yi ba léegi caabi yaa ngi si commissaire. xam nga problème mooy Mbeubeuss kenn gënuñu koo xam liggéey bi kenn gënuñu koo xam état bu jógee pour ne de defaraat Mbeubeuss ñun ñoo xam ñooy acteur principal yi ñun la war a dugal si biir bu baax parce que bu dee xalaat ñun ëpp ñu ko. bu dee lu koy doxal ñun ëpp ñu ko te ñun am na sunu projet boo xamante ne tey bu ñu état accompagné woon ni mu bëgg mu bës mel ko dina ko mel mais toog sa benn bureau bind sa benn projet ñëw jox ko état état bëgg la accompagner si loo xam xamoo si dara day metti mbëbës te xoola nu mel mbëbës amul benn sécurité fu neex waaye jaar à l'époque mbëbës daa doo ko doo fi wàññi lu mat maanaam mille mille personnes à l'heure actuelle Mbeubeuss a ngi si presque mun na 4000 personnes yoo xamante ne chaque jour ñoo ngi dugg si biir décharge bi ñun suñu association rek fu mu toll ñun ñoo ngi si 1700 1800 membres yoo xam ne dañoo affilié nekk association des récupérateurs ñu ko na di liggéey nag xaaruñu kenn yaakaaruñu kenn suñu bopp lañ lañ yaakaar ñu dañuy dem ak suñu bopp ku ñëw fekk ñu si tey def nañ société coopérative pour mieux maanaam gën a mën a maanaam euh, def suñu liggéey liggéey collectif am na suñu récépissé am na suñu agrément boo xam ministre moo ñu ko jox ñuy xaar ay financement ba léegi gisaguñu ko pour défendre suñu cause ak pour maanaam maanaam ma maanaam taxaw si suñuy tànk tax ñu ñu dem ànd ak waa Syn waa Synthèse ba monter suñu syndicat. c'est parce que ñun leen rek moo mën leen rek moo mën a am mooy suñu alal la na nu ko delloo parce que waxuñu woon loolu kon du dem tey ba heure bi mu bëgg a jël suñu alal imagineel état sax bu soxlaa sa alal bu ñëwee ah pour defar ko pour askan bi dina la jox lu lu loolu nga dem bàyyi koog loolu Massama nag koo xamante ne ni d'accord il est le maire mais nag du tax bu bugg a ñëw jël suñu alal si doole wala si leneen ñu sommes des citoyens dañuy taxaw riposter. mbëbës a ngoog gaa yaa ngoog ñoom li ñu bëgg rekk mooy liggéey ci anam yu gën a ñoŋ ñi jàppee ko bombe écologique waaye ñi fi xëy jàppee ko ñoom barabu yaakaar